والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk julit yi ñoo ngi sant suñu borom moom mi yelloo cant di ko tuub suñuy bàkkaar di ko dimbalikoo ci suñuy wax ak suñuy jëf di seede amul benn bu yelloo jaamu jaamu ga di njëriñ di lor ku di seede ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yàlla bu yàlla dëñ di dotti waamee xéewal ci kawam moom ak njabootam ak ay saxaabam ak képp ku jaar ci seen yoon gannaaw loolu ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla ndax bépp yiw moo ngi ci ragal yàlla waaye bépp lor moo ngi ci ñàkk ragal yàlla yàlla nañ ko yàlla yombalal moom ragal yàlla benn waay dafa mës a ñëw ci Omar ibn al-Khattab anhu waa ji ab yahud la mu ne ko yow amir al benn aaya day moo ngi ci seen téere bii di alquran bu doon ne ci ñun la wàcc ñun yahud yi konoon bés bi mu wàcc dañ koy jàppe feet Omar daal di koy laaj ne ko ban aaya la mu nekk mooy aaya bi nekk ci alquran sunu borom mu ne al yawma akmaltu lakum diinakum tey jii matal naa seen diine seen diine ji matal naa ko wa atmamtu aleykum niamati sunu borom ne mottali naa samay xéewal ci yéen wa raditu lakumul islaama diina ba noppi gërëmal leen lislaam muy seen diine lislaam bii yonent bi jàngale moom laa gërëm ba waa ji jàngee aaya boobu Omar ne ko ndaxam day bés bi mu wàcc xam naa ko ndax moo ngi wàcc ci bés boo xam ne daanaka bésu feet la ci jullit ñi ndax ci bésu arafaat la wàcc ak bésu àjjuma tombeek àjjuma mbokk yi aaya bi bokk na ci aay yi nga xam ne ñoo mujjee wàcc ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu aajowoo nag settantal bépp jullit war cee taxaw ndax sunu boroom tabaaraka wa dafa wax ne diine ji mat na loolu li muy tekki nag mooy diine ji nga xam ne moom la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale diiru ñaar fukki at ak ñett keroog ba aay bi wàcc la sunu boroom xibaar xeet bi ne leen diine jooju mat na lam doon jàngale lépp jeex na sunu borom tabaraka wa taala wax ne itam ne xewal bépp xewal bo xamne xet bi aajowoo na ko mat na bi jàngale nako jotali ko sallallahu alayhi wasallam waye tamit li yonenti bi jàngale sallallahu alayhi wasallam muy diine kérok sunu borom motali ko sunu borom neena diine ji la gërëm lolou kon limuy wone moy benen diine ju way yor ju bokkut ak diine ju yonent bi jàngale woon sallallahu alayhi sallam diine jooju du diine ju baax bépp njàngale boo xam ne nit ki daf koy topp wala yoon walla tariqa wuteeg yoon wala njàngale wala tariqa bi nga xam ne ci la yonent bi nekkoon moom sallallahu alayhi wa sallam keroog ba sunu borom di wax ni tariqa bii laa gërëm ku topp beneen bàyyi boobu na yëg ni du ci jëlee ngërmande sunu borom tabaraka wa taala mbokk jullit yi nañ bokk noo xam ni sunu borom tabaraka wa taala diine ji nga xam ni moom la gërëm nit ki war cee jaar ngir ëllëg dajeeg ngërmandeem mooy diine ji yeneen bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam dund ko moom ak ay saxaabaam yoon wi nga xam ne nit ki bëgg na cee jaar ngir làkk ngërëmu sunu borom benn yoon dong la mooy yoon wi nga xam ne ci la yonent bi nekkoon doon ko dund ak ay saxaabaam loolu waral sunu borom tabaraka wa taala wax ci alquran mu ne wa anna hada siraati mustaqiman sunu borom nee na lislaam bii yonent bi jàngale mooy sama yoon di yoon bu jub nag mu daldi di digal yonent bi na ko topp ne ko fattabiuhu toppal yoon wii bu ci yemoon nit ki mën naa wax ne ah xanaa am na kon yeneen yoon yoo xam ne mënees na leen topp suñu borom ne déedéet wala tattabiu subul yoon wii laa la toppaloo waaye bul topp ñall yi mooy yeneen yoon yi nga xam ne dañ koo fent di ko askanale ci yoonu yàlla te bokk ci mu ne ko yoon yooyu bu leen topp wala tattabiu subul lu tax mu ne ko fatafarraka bikum an sabili ndax yoon yooyu képp ku leen topp da lay tàkkaleeg yoonu sunu borom bi nga xam ne moom la yàlla jaarloo woon yonent bi salaay salaam te gërëm ko muy lu leer ku fi bàyyi yoon bi yonent ay saxaabaam topp beneen yoon bu ab waay fent lam lay jural mooy dalay tàqaleeg yoonu yàlla bala yàlla jàngale woon danga ko fay bax dem toppi leneen li yonent bi daan dund moom ak ay saxaabaam nga ba ko fa dem toppi leneen yonent bi salaay alayhi wasallam ba muy firi aaya bi ibnu mas'ud nee na dafa rëdd benn rëdd ci kanamu saxaaba yi rëdd bu jub ne yoonu yàllaa ngoom nee na mu daal di rëdd ay yoon yu gàtt ci wàllu ndeyjoor bi ak wàllu càmmoñ mu ne leen yoon yi ngeen di gis nag ay ñalli la yoo xam ne seytaane moo nekk ca bopp ba di ci woote seytaane moo farankulaay ca bopp yoon wa di woote kon yëgal ni saay boo sóoboo yoonu sunu borom rek tabaaraka wa taala am na ay yoon yu sew yu nekk ca wet wax di la woo waaye yëgal ni ka la cay woo ab seytaane la loolu na ko yonent bi tuddee sallallahu alayhi ndax seytaane mooy ki fekk li sunu borom tabaaraka wa taala rëddal ay jaamam moom mu rëdd leneen ko ko seytaane la aqudanna lahum sirataka almustaqim dafa waxoon sunu borom ne ko danaa franku lay ci sa digg yoon wi siratal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم مؤمنين danaa leen fare fu nekk dikke leen fu nekk ndey joor càmmooñ ci kanam ci gannaaw ba li ëpp ci say jaam danaa leen sànq ba duñ la gëm loolu waral mbokk yi daa jaadu ci bépp jullit li nga xam ne moom la yonent bi salaay sallam jàngale mu yem ci tënku ci bu dee lu ñuy nangu la ci pas-pas mu daal di koy gëm bu dee ay jëf la ak ay wax yu ñuy def ci ay jaamu yàlla mu daal yi koy defee ni ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam sunu borom moo ne wa ma aataakumu rasulu fa xuzuhu nee na li leen yonent bi andil jël leen ko wa ma nahaakum anhu fantahu lu mu leen tere nag bàyyi leen ko loolu waral mbok julit yi bepp pass pass ci diine wala bépp yoon wala doxalin wo xamne julit bi daf ci wute ak yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam lolu fam ko jëme moy ci fitna fi ci adina ak mbugalum sunu borom tabaaraku wa taala ci al-akhirah sunu borom neena fal yaxzari allazeena yukhalifuna an amri neena na yonent sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamne ñoy wutek yow nañu moytu fal yahzar ab avertissement la sunu borom neena ñi nga xamne ñoy wutek miru mbiru yonent sallallahu alayhi wasallam moy lam jàngale won nga xamne ne diine ju set wetch la raxut dara sunu borom tabaraka wa taala mu ne ñi nga xamne ne ñoo fiy wàcc loolu dem topi leneen nañ moytu lan lañuy moytu an tusibahum fitna balaa fitna di leen dal fii ci àddina te ñu bari ci salafu saalix nee nañ fitna weesuut ñaar imma nga nekk ci bokkaale yàlla mooy am keneen koo samp di ko jox àqi sunu borom tabaaraka wa taala nga nekk ci bidaa mooy jaamu yàlla boo xam ne dëppoowul ak la yonent bi jàngale woon salaay sallam sunu borom nee na ki waroog yonent bi ci loolu lay nekk ci fitna googu lay nekk waaye la gën a tar nag mooy mbugalum sunu borom àllaaxira yàlla nañ ci yàlla musal aw yusibahum adabun alim loolu waral mbokk yi dañuy wax ni bépp tariqa wala bépp yoon woo xam ne nit fent na ko gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci woote nañu bokk noo yëg ni loolu lu lislaam ngàññ la lu lislaam wattandikuloo bépp jullit la ndax sunu borom tabaraka wa taala daf ñu tere woon tàkkalikoo ci diine suñu borom tabaaraku wa taala wax ne tibi sallallahu alayhi wasallam ñi takale seen diine am ay kurel ñoñu jotey wok ñom dara innal allazina farraqu diinahum ñi nga xamne ne dañoo tàkkatle seen diine wa kanu shi'an don ay kurel lasta minhum fi shay bokkoog ñom dara loolu la yàlla wax sallallahu alayhi wasallam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ab julit kep la won amul ben tour boko don tuddé budul ab julit muslim borom bi tabaraka wa taala loolu la santaane ne nañ ci faatu wala tamutunna illa wa antum muslimuun bu leen faatu lu dul ngeen doon ay jullit loolu dafa leer yonent yàlla yuusufa alayhi salaam ba muy ñaan sunu borom faat ko daf ko ñaan mu faat ko mu doon ab jullit tawaffani musliman yonent yi bañ daan dénkaane seen njaboot dañ leen daan dénk ne nañ doon ay muslim أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون كون borom bi tabaraka wa taala lim santaane nit ki dund ko mooy lislaam tur bi nga tuddoo ko mooy muslim julit millata abikum ibrahim huwa sammaakumul muslimina min qabl moo tax beneen tur bu nit tuddee boppam rek yaa ko tuddee sa bopp waaye yàlla sunu borom tabaraka wa taala sant la ko beneen yoon bu waay jaar bàyyi fi yoonu yonent bi salaay sallam na yëg ni li ma wax sànq rek li mu koy jural mooy dund fitna fii ci àddina mooy waroog njàngale yonent bi salaay sallam bu dee dajeeg ngir ma euh, mbugalum sunu borom yàlla ci yàlla musal ku xol jamono sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la don dundu mom ak ay saxaabaam yon bi ma wax la don dundu moy siratal mustaqim ju roxu dara ci la dundu mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba faatu kiko wutu muy abu bakarin siddiq radiyallahu anhu yon wowu ci la jaar ba faatu omar ibnu xataab usman ibnu affan ali ibnu abi talib radiallahu anhum ajmain wa an sahabati ajmain amu ci kenn koy dégg ci saxaaba yi te ñii la yàlla gërëm te yàlla ñii la wax ni képp ku bëgg ma gërëm la da ngay jaar fañ jaaroon fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw bu dee gëm ngeen yàlla comme ni saxaaba yi gëmee ci ngeen di jub saxaaba yi amul benn yoon woo xam ne dangay dégg kenn ci ñoom fent ko du Abu Bakar du Omar du kenn ci ñoom la leen yonent bi jàngaloon ca lañ sax ba faatu yàlla suñu borom tabaaraka wa taala ci la leen gërëm kon yii xew ci jamono kañ la xew ab diir bu yàgg ba fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mën nga wax ni xilaafay Usmaan la am ay xalaat yu bees yu commencé xew ci diine ji ay nit commencé koo fent di ci woo nit ñi di ci askanale waroog li yonent bi jàngale sallallahu alayhi may bàyyiloo xel nag mbokk yi ne bum la war mukk bum leen war mukk bëriwaayu ñi nga xam ne ñoo topp yoonu cànk yoonu cànkute yoonu réer sunu borom tabaraka wa nee na wa in tuti akthara man fi l ard yudilluuka an sabilillah nee na lu ëpp ci nit ñi boo leen toppee dañu lay réeral wàcc loola yoonu sunu borom tabaaraka wa taala sunu borom waxaat ne wa maa aksaru naas walaw xarasta bi muminin nee na lu ëpp ci nit ñi lu ëpp ci nit ñi loo sonn sonn ci ñoom ngir ñu gëm yàlla duñ gëm yàlla sunu borom waxaat ne inna fi dalika la aaya wa maa kaana aksaruhum muminin suñ borom nee na alquran jii nettali yi may nettali ay a ngi ci ay waaraatee ngi ci waaye lu ëpp ci doomu aadama yi duñ ko gëm kon bariwaana na alquran fu muy tuddee bëriwaay daf koy ŋàññ kon bu ñi topp ak caaxaan nax ndax borom bi tabaaraka wa taala fayul bëriwaay fayul majorité de li muy fay mooy dëgg dëgg nag donte da nga cee weet ëllëg yowmal qiyaam borom bi tabaaraka wa taala ci la lay fay waaye yoonu cànkute donte ñépp ko topp itam du doon mukk yoon boo xam ne sunu borom tabaaraka wa taala daf koy gërëm moo tax may daanelee sama kàddu ci wax leen ne mbokk yi maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp nañu jéem a xamlu ak jàngaat yoon wi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la daan dund ak ay saxaabaam ñu tënk ci sunu bopp ba keroog ñuy faatu ndax yoon woowu dong rekk kese ci la jaam bi mënee am texe fii ci àddina waaye itam ci la mënee am texe àllaaxira yàlla ñu ko borom bi tabaaraka wa taala defal yoon woowu nag ay pas-pas la ak ay jaamu yàlla ak ay jikko lii la fi yonent bi bàyyi sallallahu alayhi wa kon gëstul ci wàllu lu ñuy fas mooy lu ñuy gëm lu ñuy gëmee yàlla naka la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëmee woon yàlla nga gëmee noonu yàlla loolu nag li la koy mooy mooy nga dem jàng sa diine jullit daa war a jàng diineem bañ a doon ma riirandoo rek lu jóg rek yóbbaale la déedéet jullit dafay jàng diineem xam li yàlla sunu borom tabaaraka wa taala wax ci alquran ak li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci sunnaam sallallahu alayhi wasallam nga dem jàng loolu ci wàllu pas-pas ni alquran ak sunna jàngalee ne jullit noonu la war a gëmee yàlla nga dem jàngi loolu muy benn ñaareel bi bépp jaamu yàlla booy def nanga xool li ci alquran ak sunna jàngale bi mujjee nag mooy say jikko ak say jëflante nga xool li la ci alquran jàngal ak ni ko yonent bi dundee moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam nga dund loolu lii laa la wax ne la ci la borom bi tabaaraka wa taala dige ak texe waaye képp ku ko fi bàyyi dem toppi leneen yaa ngi jaar ci yoonu alkande ndax sunu borom tabaraka wa taala neena wa may man ar rasul kep ku wute ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi jàngale li yow nga dem def le min ba'd ma tabayyana lahu al-huda ganna ba ko njub lere muy al-qur'an ak sunna leer la nañ quran jàngale li sunna jàngale li yow nga ne ko fa njukk dem topi lenen moy min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin mu topp yoon bi wuuteeg yoonu julit ñii muy saxaaba yi yoon wañ jaaroon mu topp beneen yoon bu wuuteeg yoon woowu sunu borom nee na kooku nu wallihi ma tawalla dañ koy féete fa mu féetele boppam gannaaw daa tànn leneen bàyyi li yonent bi jàngale ah foofu lañ koy féetele waaye nag yawmal qiyaam wa nuslihi jahannam ñu sànni ko jahannam yàlla na ci yàlla musal wa at masira sunu borom nee na jahannam ñaaw na ci wàccuwaay ñoo ngi ñaan borom bi yàlla ñu deppale ak yoonu deug jaarale ñu fimu jaarale won yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak ay sahabaam musal ñu ci yoonu neen ak bépp yoon ak ñangalé mu worok ñangalé yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma aminna fi awtanina wa aslih aimmatana wa wulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى تحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لرعايتهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الاستقامة في السر والعلن اللهم ثبتنا على السنة حتى الممات اللهم ثبتنا على القرآن والسنة حتى الممات يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين